soxna Ami ne ma xaw ma jëm mu ñoom diw luñ ci def mën na ko déedéet mu ne ma lu tax mën na ko yàlla nee na ku mu seexal sa xaalis doo ko def ci liggéey kon yéen yàlla bu yàlla seexal seen xaalis liggéey ba nag daanaka man fii ma toog rek encaissé naa fi 3 millions. te loolu nag mbàkk mooy liggéey bi. mooy loolu jullit yi lu mu song war ko mën a daane téeméeri million lañ ko doon laaj li ci des fi nekk ni ma dul diis te fii ma toog encaissé naa fi trois diggante samedi ak fi trois muy siis benn ngi nii indi benn million ngi nii ki ko wax nag daf ne moo tudd turam ki ko wax daf ne moo tudd turam waaye nee ko agsi na ne directeur général agsi na tudd ma turam nag waaye ne directeur général agsi na Mbàkke man daal ñaari enveloppe laa bi ubbi ca kër soxna Fatou Diallo bu waroon laaj rek dina ma waa Papa mbaa sa kii bi jaxasoo ma ne ko déedéet Diallo déedéet bi jaxasoo nga ne def ma ne ko ñaari enveloppe laay am ku def wari ni Ousseynou Sall ma def sama enveloppe ku ne pour téléthon ma def ci enveloppe tey bi wa in tuxaalituhum fa ixwaanukum fi diin kon loolu rek lay teg loolu rek nag mooy liggéey bi ndax téeméeri million lañ soxla woon macha allah ba fi jóge ci dem ñeme nan ko xam naa mars bi ñu ne bu tey bu dajee mu tudd ca fekk may mars bi weer jaaxal ci weer vingt cinq mille Ibrahima waxtaanee soo seet gis nga ku dul fen bàkke fen ko day doon ku dul naxe nax ko day doon ku dul tiriyaande tiriyaande ko day doon moo tax gars yi ne tey soo seet dañu fee am or mu ne ah ñu ne waaw mu gëm ne am nañ ko nekk amuñu tous gars yi nag bu ñu jox ñuy xaaj wóolu nga leen ñu wóolu naa leen ndax maa ngi may bokk naan attaaya jox leen leen ñu jox la gars yi gars fes ñu ne oustaz tey ana or ñu ne ana or ana gars ana gars kon nag kaay toog lii da lañ ko téye président gracier ko mais nag pen bi la teg yi xaay ba des maag sunu mbokk Iran ndaw yal ko yàlla fay Bélan daal day ñëw ubbi saal bi di ba ñun ñëpp ñu xam xamu fu mu ko jël waa jooju non c'est extraordinaire man ma leen nekkee am moom man mbaa ma jaay sama wóor ci yëpp ak sama kër man ko ma jaay sama bos man tamit sama oto nu def ci rek amaguma kër la damay liggéey waaye mën naa jaay oto Iran merci beaucoup loolu nag mooy liggéey Sénégal yëpp mbàkke yàlla xam ne ne keroog damaa taxaw benn xale bi ma dàq bi ma dàq naan ma nii ci bi ba ma taxaw ndeke 2000 la may jox ni ma jox ko tey soosi yàlla xam na ah téléthon merci bu Bougane Gueye mi nga xam ne moo yor télévision Sen TV bu tey kooku tey ba law salaata waaw góor si Bougane li ñu télé daal noonu trente secondes de télé mat na six mille wala douze mille léegi nag toogaleen wax ba doyal sànni bi ci tege bu ngeen neexee ñëw leen yàlla nag defal ñu defal ñu xéewalu téléphone ya waaw xam nga su tànn tën làkk bis bu njëkk ba la ñuy bàyyi waaw ñu tey woote allo téléthon damaa joxe 4 millions du jot tous par téléphone par téléphone yi yëpp ko paan mu def suñu télé bi suñu téléphone yii waaw Cheikh da nga ni tubaab tubaab bi tey na tey merci tey waaw tey tey kon nag moom tam amee nañu cant bu gan gi daan moom def loolu waaye Sénégal yëpp amee nañ leen cant fu ne la affaire jóge fu ne na dana na ko ab euh, docteur Abdoulaye Lam ni ñu ngi ko déggee daf ne képp ku koo xam ne ci Ibadou Rahmane nga bokk mooy su kilifa def ci sa loxo daal ne mun mooy suñu loxo noonu en tant que kilifa mbooloo bi amin kon nag yàlla bu yàlla seexlu seen xaalis ndax ku yàlla seexlu xaalis doo def kon nag Mbàkke carte membre ca Baba Jalle lañ koy jëlee waaw tey baa ma ngoog tey tey tey tey amiin yow yaa ngi ci d' accord colonel Issa Ndiaye jërëjëf ñoo ko sant tey waaw tey waaw ku ñëw rek tey tey kon nag Mbàkke tey waaw alhamdulilah tey ma yemale foofu sama kàddu ñaan yàlla may nu fekkee déwén ca wees ko li nga waxoon sànq waxaat ko ñoo ngi leen di wóor ci liggéey bi liggéey bii de jànge nañ ci lu bari bi ñu doon def jànge nañ ci lu bari waaye bii tam ne ñëw sopp président kon nag kàddu gaa moom liggéey ba am lépp rafet na.